rabbi auzu bika min hamazati shayatin wa auzu bika rabbi an yahdurun mbokk yi ñuy déglu ci Safina FM 98 point 2 wala ci internet bi www.safinahi.org di ñu suivre tamit ci seen chaîne YouTube Leral Plus TV ñu ngi leen di boole nuyoo bi ñu yàlla boole te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di ñëwaat ak yeen ci seen émission firi gént comme niñ ko baaxoo def ak yeen dimanche bu nek bu 23h jotee japp 0h ci Safina FM 98.2 di sant yalla gannaaw bañu mu fi bañ bam ñu fi bayé euh ñu mëna déllu ci siwaat tok ak yeen ngir def bi la émission di julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbollem kilifa yi nga xamne ñu ngi deglu diko di commencé ci kilifa gi borom kër gi ji Thierno yoroban di wacc ba ci suñu directrice soxna ñu Ba di nuyu tamit suñu serigne suñu wayjur suñu kilifa alxaaji Cheikh Ñang ak mbollem wa kër ge yeb di nuyu mbollem ñi nga xamne ñi ngi deglu ci jamono bi di wax ne kon ñewat nañ ak yeen ci seen émission inchaallah ngeen mën a dugg ci 88 628 10 95 88 628 10 95 ngir mën a joxe seen gént ñu ñëw ci ak yéen inchaallah ak gént yi nga xam ne indaale nañu ko fii nii waaye saa bu ngeen wootee rek inchaallah dinañ leen jël ngeen mën a joxe seen gént tey nag ñi nga ànd ci technique bi Serigne Omar Samb mu remplacer fi Samba si suñu xarit di ñaan yàlla mu delloo siwaat ko ci jàmm insha allah di nuyu bu baax suñu jigéen suñu xarit soxna Khadija madame Diaw borom le 23 septembre ñu ngi koy souhaiter joyeux anniversaire par anticipation di ko ñaanal ne ko yàlla nga koo yàgg fete dund bay say may di saawaan di baawaan comme ni koy waxee yàlla may la njaboot gu barkeel insha allah di nuyu mboolem ñi ñuy déglu kon ci kanam tuuti rek insha allah ñu dugg ak yeen ci émission bi bismillah jërëjëf Omar Sambu jërëjëf Omar Sambu ci technique bi 88 ngeen def 628 10 95 euh bu mbokk duggee rek ñu jël ko insha allah waaye laata loolu ñu commencé ci gént yi kii mu ne dafa gént di xuloo nee na di xuloo euh, gént na tamit di rey jaan gént di xuloo baax na jëriñ la ci yow ak ci ki ngay xuloo ko ni ki noonu gént di rey jaan jaanit baax na ndax jaan ci gént day firi seytaane euh, bu lay fexeel day firi tamit noon bu lay jéemal kon boo ko reyee danay firi noon boo jekku ak euh, not goo xam ne danga ko not pexey seytaane ba du la mënal dara nee dafa gént dem ci dëkkam dëkku cosaanam di sangu ca digg dëkk bi nee ci loolu gis na ñaari jigéen nee na topp mu war nag ab mbaam jëme ko tool nee na ba mu yàgg mbaam mi rëcc nee na ma ngay dóor mbaam mi waaye mbaam ma rëcci na te mujjeewu ko jàppaat ba ni mu yeewu gént di sangu baax na ndax dañ ci ay problème la ak ay jafe-jafe problème yi ak jafe-jafe yi ay tilim la yuy sonal doom aadama ci maana kon boo sangoo ci gént dañ ci ay problème ak ay jafe-jafe la niki noonu tamit bàkkaar la euh, dañ ci ay bàkkaar la sangu Euh, gis ay jigéen ci gént baax na jigéen ci gént àdduna la euh, selon na mu mel ci taar euh, noon la avantage bi di gën a bëri ci aji gént ji niki noonu war mbaam ci gént mbaam nga gis ko ci gént coono la mbaam coono la ci gént ndax sëf rek lañ koy def ak dóor kon mbaam boo ko géntee kooku coono la jafe-jafe la ci àdduna Euh, nga dóor ko mu rëcc la ay jafe-jafe la yoo xam ne euh, dana la gane si waaye dana dem kii dafa gént gis xale bu ñuy nàmpal bu góor nee na xale bi ñëw daw ba ci moom mel ni moom mooy yaayam ci gént gi nee na ba ñëwee ma ngay nàmp ci ay weenam ma ngay sentir ne xale baa ngi nàmp comme doom bu mu jur euh, xale maanaam gént di nàmpal baax na kooku yërmande lay firi ak ñeewant niki noonu tamit xale buy nàmp nga gént gis ko baax na waaye bu nekkee jigéen moo gën mu nekk góor ndax bu nekkee góor mën na firi ay problème ak ay jafe-jafe euh, nga gént gis benn sëriñ nee na sëriñam la gént gis ko nee na moom ci boppam ma ngay zikkar moom ki gént nee na sëriñ bi ñëw toog di ko xool ba mu yàgg mu ne ko yow li ngay jàmbat sa jàmbat yi dafa bari ci noonu mu ne ko tàllalal ma ñaanal la ba mu ko ñaanalee jox ko aw kayit kayit ba 2000 francs la nee mu ne ko jëndal ma ci ndox mu yeewu gént gis sa sëriñ de ci gént baax na bu fekkee sëriñ bi nga yaakaar mu yeggale la ci sa borom la day tegtale ne dalay ñaax nga gën a góorlu ci yoon walay jëme ci sa borom ak yoon woo xam ne dana la Euh, dana la gën a dëgëral ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, mu ne la li ngay jàmbat dafa bëri kooku yeddaange la goo xam ne dana ko jëmale ci yow ci nga bàyyi jàmbat gu bari bu fekkee yaa ngi ko doon def mu ñaanal la ci gént sa sëriñ ñaanal la ci gént danay firi barke mu jox la xaalisu biye xaalisu biye ci gént xeewal la wërsëg la baax na mu ne la jëndal ma ndox ndox ci gént tamit xéewal la baax na nee dafa mbokk mi ci ligne bi yegsil kii nee na dafa gént gis benn kilifa ci wàllu politique koo xam ne moom mos na ko liggéeyal lu jiitu muy génn réew mi liggéeyal na ko euh, nee na kilifa googu dafa woote bismillah amee jafe-jafe ci wàllu jokkoo gi waaye mën ngeen di wéy rek di def 88 628 10 95 incha allah nee na kilifa gi woote ba mu wootee mbooloo ñëw wuy si mbooloo moo xam ne ñii ay militant wam lañ ñi ñoo xam ne day liggéey ak ñoom ci wàllu ay société yu mu yor nee na ba ñëwee moom toogul ca mbooloo ma waaye dafa yéeg ca kaw toog ca kaw terrasse ba neena bañu ñibbi tamit dugg na ci auto waaye ca gannaaw la tëdd di nelaw euh, kilifa ci gént ku siiw nga gént gis ko baax na 88 628 10 nee moom foofu la doon nelaw gis kilifa ci gént baax na bismillah danay firi bayr danay firi avancement ak réussite ci wàllu dund gi bismillah am na kuy fëgg ci 88 628 10 95 bu ñu déggee rek incha allah mu ñëw euh, doxul dafa mel ni nee na kon mu gis mbooloo mbooloo ci gént tamit àdduna la baax na nee na gént nekk fu kawe baax na bu fekkee wàccoo nag ba gént gi jeex moo gën nga dugg ci oto ci gént tamit xéewal la yiw la baax na nga fay nelaw xel mu dal kon ki neena na dafa gentu jërëjëf euh, Omar Sambu ci technique bi am na ko duggaat bismillah kooku tamit yegg seegul wa koku dafa am retour mbok mi bismillah eh, day faral di genti di jomi ki koy jomal xale bu góor la bismillah 88 628 10 95 dem na nee ka koy jomal nak da koy dikke ci melokanu talibé bu ko won ginnaw nee na bu ko wooyee ne ko ee eh, taalibe mu ne ko man duma taalibe dama ñëw pour jommal la nee na na lu muy faral di gént di ko gis lu ni ngay faral di gént di ko gis mën na firi àndaale boo xam ne yaa ngi ko am mën na firi jinne wala seytaane boo xam ne mi ngi ñëw ngir tiital la mën na nekk lu ni mel ku ne joom mi wax tiitaange ci gént tiitaange ci gént nag alo 88 628 10 95 allo mbokk mi yegsil kooku dem na danay firi xel mu dal danay firi sécurité boo xam ne danga ko am allo danay firi tamit xel mu dal ak sécurité ci dund bi nee na dafa gént dafa am ku ñëw bismillah nee na ci waxtaan gum doon waxtaan ak grande sœur am ci la ngelaw bu fort boobu ñëw daal di yóbbu xadd néeg bi mooy plafond bi muy néeg yi ñuy def ci àll ba néegu ñax mbokk mi bismillah 88 628 10 95 yegsil waaleykum salaam dafa mel ni moom tamit retour bi day jafe euh, nee na ci loolu mu yóbbu xadd néeg ba plafond ba ci lu sori ànd ak poussière nee na bi pënd bi wuree nag ci lañ gis na sànni na ko fu sori ñi koy seet ngelaw ci gént de danay firi musiba danay firi alkande danay firi balaa ngelaw lu am doole ci gént baaxul kooku baaxul nee na dafa gént ki nga xam ne moom la bëgg a takk soxna nee dafa am ku ñëw bismillah nee na kon dafa gént kon dem ci ab sëriñ ngir ñaan lu ci digganteem ak ki nga xam ne moom la bëgg a def soxna te d'accord a guñu waaye nee na ba mu demee sëriñ bi xaarloo na ko diir bu yàgg nee na ba ba pare nee na ci loolu am na lu mu ko jox daal ne ko ñetti fan laa la may <coughs> ngeen baal neena gënt dem di ñaan lu ci gënt baxna koku aaju ju faju la ñaan gu nangu la tamit mu jox la dara na la ñetti fan la la may koku tamit ñaan gu nangu aaju ju faju la mën na am sax du la ngay bëgg nga am ko insha allah kon ñu ñëw rek ci bokk yi nga xam ñoo fi wote joxe seen gént laata ñuy continuer ci yi fi indalé ki neena dafa gënt yek ci kaw fas bu maron neena di bay gerte mbokk mi bismillah jërëjëf jërëjëf Omar Sam ci technique bi euh neena dafa war fas bu maron di bay gert. neena nak fiñi bay dam na bam yag ñu gis ay xéeru ban ay xéer dal yu xonku neena tamit gis na benn jigen gént fas baax na fas danay firi xéewal danay firi tamit soxna euh, di bay gerte baax na euh, ak lépp loo xam ne day meññ nga di ko bay ci gént baax na wërsëg la woo xam ne danga ko am waaye danga jànq wante ak ay coono soo koo am ay xeer yu xonq ci gént danay firi ay difficulté ak ay jafe-jafe ci dund ay xeer lépp loo xam ne lu xonq la tamit danay wane danay firi danger jigéen ci gént tamit kooku àdduna la baax na neen dafa gént tukki ànd ak xaritam ñu dem ba ci di benn dëkk def escale nee ci loolu xarit bi daal di dem euh, ci jamono boo xam ne ñu ngi noppalu lekk naan ngir soog a continuer seen yoon moom ma nga dem di foo di football nee na mu ne ko kaañu dem bi dem jotee mu ne ko déedéet damay continuer sama football nee na bañ mujj sax ñoom ñu tardé ba demuñ ñoom ñaar nee ci loolu xarit bi daanu ci benn euh, rigol benn canal nee ci loolu mu woo sapeur pompier ñu ñëw génnee ko euh, gént tukki changement de situation lay firi maanaam jóge ci melokan melokan dem ci benen melokan comme ni nga ko géntee tukki ci genté tamit nay firi tukki ci walu bopam mën nga genté tukki après bala yag yalla def nga tukki niki non tamit football ci mom da nay firi di def ay mbir yo xamné dula amal ben njëriñ ci sa dund koku lolay firi nee na tamit tardé gi ngeen tardé mooy kon situation yoo xam ne dangeen fa dem yàgg sa xarit bi mu tardé tardé la mun na firi lu ni mel nee na daanu ci pax ci gént kooku ay jafe-jafe la ay problème la sapeur pompier ci gént kooku ndimbal la kooku baax na nee na dafa gént dugg ci wanag wi fekk fa mburu ak leneen nee ñu ne ko lii ab liggéey la buñ fi teg euh, dugg ci toilette toilette ci gént danay firi euh, nekk ci ay jafe-jafe am-am jafe-jafe kom koom maanaam toll foo xam ne da nga soxla ak koom da nga am ay jafe-jafe ci wàllu finance amaana gént gis ab liggéey ci gént danay firi ñaan gu nangu danay firi muslaay nee na dafa gént dem ci kër maamam daal di fay fekk bàjjanam ndax mam ji genn na aduna bàjjan ba fa nekk la fa fekk neena mu nek ak koo xam du borom kërëm neena mu bañ ko nuyu mu ne ko lutax nuyu woma mu ne ko lan motax ngay nek ak daganul ngay dekk ak mom neena ci lolu ma nga and ak ben sëram grande sëram ñu dugg ci nek mère bi genn aduna neena mu ne ko fii la ñuy fanaan tey man ak yow ci loolu ñu gis maire bi seen mam ma ngay ci loolu ji mag naan kër gi yépp yàq nañ ko toilette biñ ma waroon defaral sax defaruñ ko gis na tamit ji ànd ak benn frère am moom frère ji nee mam ji jox xaalis frère bi ne ko jox ko Mom aji genti ji ñu ne ko legi nak dañuy dem lu jitu taw bi dañuy fekk mu ne len xaliss bi ngeen ma jox nak ñu ne ko garder ko dal di dem nga genti dem nga gis nga dem ci kër aji genn aduna nga gis ko moom ci bopam bu fekke ci melokan bu rafet nga ko gis bax def ferina mang ci yow mang ci xewal joy ci genti dañay firi mbekté ak banex niki noonu tamit xaalis ci gént bu fekkee biye la baax na yiw la xéewal la baax na nee na tamit euh, ñoom ñaar ñooñu nga gént bu fekkee ñoom ñaar ñëpp ñi ngi ca kër dëgg nga gént gis leen soxla nañ sa ñaan soxla nañ say sarax nga gént nag gis nit di def naka su dul noonu ak koo xam ne kooku tekkiwul ne ci naka sa noonu boobu la nekk ndax mën na firi ñaaw njort goo xam ne yow aji gént ji yaa ngi koy ñaaw njortu ci ndaw soosu la kooku loolu lay firi keneen dafa gént euh, dafa gént moom mi gis yaayam mu woo leen ñoom ñëpp dajale leen mel ni kuy dénkaane koo xam ne dafay waaj a génn àdduna ba léegi mën ngeen def 88 628 10 95 88 628 10 95 danañ leen jël allah ngeen joxe seen 12 euh, minutes moo ñu dese mu boole la di ci gis na ko jabar la ci euh, frère am ma ngay muy joy. nee ci loolu yaaji ji ba pare dem nee na mi ngi mel ni moom dafa toog di ko xaar ndax yaay ji def ne mu xaar ko ndax da koo soxla ci xaar boobu nee na dugg na nekk soxna euh, frère am boobu di seet ay dàll nee na ci loolu mu ne ko sama yaay de war na ñëw ndax man dama bëgg a dem ci loolu daje na ak moom yaay ji dénk ko ne ko góor góorgóorlul euh, te am jom nee na daal mel ni kuy tàggoo ngir génn àdduna <coughs> nga gént sa yaay di la dénk baax na lool gis sa yaay ci gént ci boppam rawatina bu fekkee bokk leen fu ngeen nekk kooku danay firi euh, euh, ñaan yoo xam ne mi ngi la koy ñaanal bu fekkee mi ngi dund dana firi tamit ngërmande goo xam ne donte waxu la ko mi ngi la ko dencal ci xolam kooku baax na mu lay dénk rawatina jooy ci gént mbégte la xéewal la baax na ay dàll ci gént kooku avancement la yiw la ak saafarawu jafe-jafe koom-koom neen dafa gént gis euh, ay gàncaxu soble ak ñaari xaj yu ndaw benn bu ndaw ak benn bu mag soble ci gént baax na danay firi wërsëg danay firi xéewal bu fekkee lekkoo ca nag lay firi lu ni mel soble ci gént tamit danay firi jaxase ay doom aadama danay firi rambaaj bu fekkee lekk nga ko nag baaxul kon 88 ngeen def 628 10 95 88 628 10 95 Omar Samb la ñuy ànd ci technique bi Samba si ñu ngi lay nuyu bu baax incha ci ñu ngi lay nuyu bu baax di la wax ne namm nañ la tey wéetal nga ñu torop di nuyu bu baax aas euh, suñu garde corps di nuyu Baba sek mbokk mi ci ligne bi bismillah alaykum salam jërëjëf Omar Sambu ñu continue rek kon ci minute yi ñu dese eggale gént yi fi indi Kini dafa gént benn soxna bu xees mu génnee ci kër dëkkandoom ñëw këram nee na ba mu duggee rek bunt bi dafa dàjjeeku nee na ci loolu mu ñëw jéggi soxnaam bi nekkoon ci att bi ñëw fekk ko ca néeg ba mu ñëwee fekk ko ca néeg ba moom xale bu jigéen bi mu nga sol benn kilot nee na ma ngay wax wax joo xam ne ku tegul sa nopp ci gémmiñam doo ko dégg nee na ci loolu nag soxnaam nag waxul dara waaye soxna soosule xale bu jigéen bi ma nga toog di ko defal ni soxna di defal boroom këram nee na di ko raayal bopp bi ak yu ni mel nee ci loolu mu yeewu jigéen ci gént gu xees bu rafetee kooku àdduna la kooku yiw la kooku xéewal la baax na lool mu ñëw di la defal yooyu la nag te nekkul sa soxna ci gént kooku mën na firi seytaane mën na firi tamit ay bànneexu bakkan yoo xam ne mi ngi ci yow buntu kër gu dàjjeeku euh, kooku baaxul bunt nag ci gént bunt bu ubbeeku walla bu tëju baax na waaye bu daajee ko nag kooku baaxul nee na dafa gént euh, kër goo xam ne mi ngi koy tabax eggul nee na mu gént nag gis fa am màgget muy sangu nee na mu laaj ko lan moo tax ngay ñëw fii di sangu faalewu ko nee na mu tàngoor di dóor màgget mi waaye màgget mi wuyoo ko mu nga continuer di sangu nee na am na ku ko faroo mu daan ko yow mii sa affaire leerul looy def fii saay-saay nga nee ci loolu ci même kër gi mu gis fa benn jaan mos na gént gis fa benn yeew bu mag a mag ca teen ba nekk ca buntu kër gi gént gis am màgget moom baaxul ay problème la ay jafe-jafe la muy sangu ci kër gu pareegul kooku baaxul nee na nga di ko dóor dóor ci gént njëriñ la boo xam ne ko jëme ci doom aadama dóor ci gént baax na gént di dóor sa jabar sa doom wala koo mën di dóor njëriñ la boo xam ne dina jóge ci yow jëm ci moom nee na nga gént ñu naan la saay-saay nga di la wax ay jikk yoo xam ne baaxul kooku avertissement la ak yeddaange ngir nga bàyyi sa bopp xel bàyyi ci sa bopp xel jaan na ci gént kooku noonu la seytaane la baaxul tamit jaan baaxul nee dafa gént ñu nekk ci ndox nee na di for ay euh, buuj yooyu di nekk ci ndox nga xam ne xoor yi ci lay jóge neena ci loolu ñu ngay feey ànd ak ay jigéen waa ñu mujj tàqalikoo jigéen ñi jëm ni góor ñi jëm ñi na ca des gént nekk ci ndox bu fekkee ci nature am la nekk moom ndox mi deful benn dégât kooku baax na te ci tamit euh, ak mboolem luy génnee ci géej yit xeewal la baax na di feey ci geej ànd ak ay jigen koku ay xewal la aduna la bax na euh neena dafa gént ànd ak xaritam ben xaritam dem ci neena jabaram mo gént ànd ak xaritam dem ci place kayam bañ demee ba jup place liggéeyukaay ba ñu summi seeni dal summi ay dal ci gént nak baxul koku ñak lay firi jafé jafé ci walu alal lay firi kooku baaxul nee dafa gént réer jëm këram dal di réer xamatul yoon wi fan la réer ci gént mën na firi gindeeku waaye mën na firi tamit ak réeroo ak say jegeñaale nee na dafa gént dem ci benn dëkk boo xam ne ci montagne la nekk nee na ci loolu boo booy génn ci dëkk boobu il faut nga wàcc traverser daal di xuus ndox ngir dem ci beneen dëkk waaye moom ba mu demee ci dëkk boobu dafa naagu lam fa yaakaaroon ak lam fa fekkoon amul jógee ci dëkk dem ci dëkk mooy tukki changement de situation lay firi bu fekkee fa nga dem fa nga jógee moo ko dàq mooy situation ba ngay jógee ba ngay dem ba nga jógee moo ko gën lii la fi woon ci seen émission firi gént ci Safina FM 98 point de ci dimanche tey bi depuis 23 heures ñu ci doon ànd ak yéen ci Safina FM 98 point 2 wala ci safina hi point org ci ñuy suivre ci internet bi en direct euh, ak ñu ñuy suivre ci Leral Plus TV ñu doon ànd ci technique bi kay tey Omar Samb di sant di gërëm mboolem ñi nga xam ne woote nañ fi joxe seen gént ak mboolem ñi fi woote ñaan kontaan nañ ci yéen ñëpp macha allah di leen ñaanal guddi jàmm ak salaam di leen jox dig daje kon dimanche bii di ñëw. ci benen émission firi gént ngeen di ci ànd ak seen bokk seen xarit Mohamed Mounir Niang alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان بقية الإخفاق لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق ما لم يتوج ربه بخلاقي